daal di commencé campagne bi may lancé appel nag sénégalais yi xam nañ ni bëgg ngeen ñu lool xiif ngeen ñu lool waaye na ngeen ñu comprendre sept jours de campagne lépp xaju si ñu leen koy ñaan rek ku ñu jaarul goxam bu mu mer ku ñu taxawul goxam romb rapidement bu mu mer parce que élection boo amee vingt jours sax mënoo def le Sénégal waxuma laa léegi ñu ngi dese la sept jours te génnaguñu Ndakaaru militants yi xamante nañu léeg-léeg nit ñi def ko affaire sama koñ. sama dëkk déedéet ñun gagné la ñu bëgg d'abord kon bu dee ay candidat ñoo mën a ñëw toog fii bàyyi seen lépp ñëw toog fii mënoon nañ ne man sama candidat bopp maa ngi dem kon kenn ku nekk na xam ni patriotisme bi ñuy wax fii la war a feeñee dina doon campagne bu méttee méttee métti caravane lañu ñu mën a def dañuy traverser rek. waaye lu luñ ci mën def rek nañ ko ci def mais ñuy ñaan ñëpp li daan am ci mit campagne yi dañu war a jaar itinéraire bi pourquoi defuñu lii mer naa gedd naa li tax ñëwuñu sama dëkk li tax wàccuñu nuyu kilifa gi suñu amoon sañ-sañ loolu lépp nañ ko def mais su mënul nekk rek lu mënul nekk rek nañ ñu ko nangul te bu mu tax bu mu bu mu tee ñu gën a takk ndigg yi parce que avenir u Sénégal la du affaire nit du affaire koñ du affaire dëkk ñaareel bi. mooy dama bëgg nit ñi bu ñu waxati sax lu jëm ci makisal Sall on trompe de combat makisal keroog bi mu nee man doot nekkatuma kàndidaa la ñu pareeg moom du suñu adversaire waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat makisal Macky Ba bu yàlla ñàkkee bëgg senegal dëgg dëgg dëgg rek na ko jox Amadou Ba wallaahi yéen xamu leen Amadou Ba sénégalais question bi ñu waroon posé wu rek mooy simple fonctionnaire nu mu mënee yor alal gi yépp loolu rek jar na bañ a woteel kooku maak moom ak kii ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla ñun amuñu dara wala am nañ tuuti waaw fan la milliardu Amadou Ba yi jóge est-ce que sénégalais dañuy poser question boobu kon loolu rek doy na ñu ne kii. ma lu mën a nekk président réew mi vous man bëgguma ñu dugg ci débat de personne dégg naa ñi naan dëkk sàngam la jógee ak du sénégalais déedéet sénégalais la fii la juddoo jàngee fi am nationalité def fi tout sa toute sa classe du sénégalais la rek gënuma koo nekk sénégalais te it ñëpp jógee ci dëkk yooyu gis nga senegal dëkku teranga la ñun ay panafricain lañu ay sénégalais ngi dund feneen ñeneen a ngi dund fii ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam sénégalais la ñun ñëpp bu ñu stigmatiser kenn. bu ñu stigmatiser kenn loolu baaxul su ñuy natt nañu wax kii est-ce que ay loxoom set na est-ce que bëgg na réew mi est am na compétence yi. leen nag premier question bi tontu naa ci ba noppi. ñaareel bi mooy bis bu ñu ko joxee réew mi dénk nañu réew mi waa bitim réew xam nga ci samay série vidéo yi ma defoon am na yenn ñaar yu waroon génn waaye jaratu ko benn bi ci moom laa ko defoon ñi ko gis gis nañ ko benn bi ci moom laa ko defoon spécialement mu ngi wër nag di wax yor làmmiñam di wax nee na ñun lay attake bukki nag bu yabee waxambaana Amadou Ba mënuñoo yab de ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu mu warul jël ma ne ko tegal ci suuf xam na ko xam na ko jiite na direction générale des impôts mayor syndicat yàgg naa laal lu mu warul laal man vérifié naa entreprise bindu ko ay milliards mu laal ko bugg ko wàññi ma ne ko boo ko laalee ma digaale ko yow moom xam na te taxaw naa assemblée nationale interpellé ko ci li nga xam ne alalu réew mi la mu salfaañe ko ngir bëgg a neex tubaab yi kooku di ngeen ko jox réew mi balaa may dee ñu ne compétence compétence su la expérience expérience la lan randal alalu réew mi. jàmm ji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 nopp dalatu na ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci jàmm ji e foog ko koy amee abonné leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp